salaam aleykum yéen a ngi ak Saloum seen émission fee mu fii ak feneen jus corossol poire lañ leen indil tey dañuy teg ne corossol bi lijjanti poire yi ba pare dañ koy dagg ñaari extrémité yi xolli ko ba mu set suñu xoolee suñu poire ba mu set wecc ba ko defee li ñuy def mooy dagg ko ci dig bi mhm, suñ ko daggee ci dig bi dagat ko ci dig bi dindi trognon bi trognon bi c'est pas mangeable donc du coup dañ koy dindi daal di koy dagg ay dés grossièrement rek gis na. buñ ko daggee dee ba pare. lu ñuy def mooy jël suñu cin daal di ciy def poire yi suñ ci defee poire yi ba pare def si ndox daal di koy teg muy ñor ñu ñëw ci suñu corossol gis ngeen ko noonu dañ koy dagg ci digg bi commencé di dindi pulpe corossol bi gis nga ko noonu di dindi waale doom yi nekk ci biir pulpe bi ba mu set li ci digg bi noonu gisoo leen ko ci vidéo bi mais dindi naa ko parce que c'est pas mangeable ñu am suñu pulpe jël plus de la moitié def ko ci mixeur bi def si ndox mixé ko ba mu nooy ñu passé ko au tamis mhm. suñ ko passé au tamit dañuy daal di jël maris yi mu aidé ñu pour ñu mën a dindi ndox bi yépp voilà nga ko nii suñu dindee ndox bi yépp am nañu suñu jus de cajasol gis nga ko nii lu ñuy def mooy daal di koy teg de côté ñëw suñu poire arñor ñu def ko ci mixeur bi moom tamit daal di koy mixer ba mu nooy nepp hmm, ñu ko mixer ba mu nooy ba pare ñu teg passoire pour précaution rek daal di passer waat jus ou poire bi hmm, benn bu ci nekk mën na nekk jus voilà beaucoup de fait ñu def ci suñu sucrés. concentré sucré suñu les concentrés mhm. concentré sucré daal di def concentré non sucré mhm. bu ñu les concentrés concentré non sucré ba daal di def fleur d'orange daal di yëngal defuñu ci parce que les concentré sucré moo tax mais ku bëgg sucre, yokk sucre. nga sucre. Nous ñu def essence carasol pour accentuer le goût corossol bi gis nga ko ni suñu jus daal di presque pareil, nous daal di jël pulpi.